ñu tënku quoi waaw ziar naa leen di am contentement si teewaay bi ma am fii tey parce que comme li ma doon wax sànq fële eh, ay jullit lañ te lii dafa am solo donc voilà woote na koñam nga xool gis ne ñëpp déplacé wu nañ ci weeru koor c'est pas évident ñëw wuyu si ko ñëpp ñëw donc voilà dañ koy féliciter si lii di ko encourager di ko wax ne lépp lu ci séntu yàlla na ko borom bi defal ba ba mu weesu ay njortam incha yeah mën nañu xaar yéen ñaar ngeen def futur loolu force la waaw ah. ah, pourquoi pas bien sûr jàmm ji moo ëpp solo lépp tu vois tey euh, am contentement comme ni mu amee contentement tu parce que góor yàlla la Baye Fall la ay ndaw lañ nag mënul ñàkk des fois xama ci game ci football ci lépp day am tu mais lii mooy mujj quoi mooy jàmm ji ni surtout qu'on est des musulmans ah doon ay Baye Fall bokk sëriñ tu vois donc euh, voilà lii moo am solo pour man am naa contentement bu rëy ñu accueillir ma fii ma ñëw toog et puis je me sens comme chez aussi donc di ko féliciter di ko encourager waat bu baax a baax a baax si lii lépp lu mu ci suñu borom defal ko ko si incha allah. def mm, euh, man maa ngi ci biir et tey dafa nekk beneen affaire bu bu dama koy saluer deux fois parce que non seulement nit la boo xamante ni tey mun naa ne dem na ba sama diggante ak moom dépassé na musique parce que ñu ngi dund leneen e ñaari jëmm yi taxaw di ak bés di matadi di man tamit bu ñu demee ba taxaw ginnaaw yàlla moom One Lyrical am na ci rôle bu spécial boo xamante ni dund na ko ci te loolu mooy esprit de de grandeur tey ñoom dañu wane dañu wane dañu wane ni ay mag lañ dañu wane ni ay mature lañ ak bés bu déplacé woo ak lépp li am ci sama diggante ak moom mais hip hop la li may wax mu am souplesse bu bàyyi lépp tey dugg géejawaay xuus ñëw fekk suñu apprécier wala bokk ci ci ci ci jéego yu ñuy def pour ndog bi mata di am souplesse jukki mu nekkoon ñëw toog fekk si ko parce que ku fekk si ngaa ko mata di nga fekk si nga xam ne loolu maturité la waaye loolu yëpp su amee ginnaaw yàlla wan lyrical am na ci rôle bu extraordinaire boo xamante ni def na ko ci te ku xam wan xam ni lépp lu ngaa def mi ngi ci aussi ku xam sama diggante ak moom xam ne yàgg na du tey ah même bu fekkee ni bokkuñu ay secteurs yu ñu nekk mais nit la boo xamante ni dafa bokk ci ñun dafa bokk ci rap dafa bokk ci hip hop ba être nag fësalu ko ba nit ñi xam ko mais lépp lu Ngaaka di def mi ngi ci biir et lépp lu Teuch di def aussi man Ngaaka leen maa ngi ci biir ak grand yi nga xamante ni ñëpp teewee nañ tey ah, yaatal bi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci ndogu li quoi waaye bien sûr